ñaar fukki joueur ak ñett ñoo tàggatu tey Fodé Ballo Touré bokkul woon ci séance bi gaañu gaañu la amee moo tax Moussa Ndiaye tamit aksegul fii ci Qatar dañu ko woo ngir mu jël placeu Sadio Mané loolu lépp nag terewul Aliou Cissé am yaakaar ci match suba bi donte ni Sadio maane dina manqué bu baax ci équipe bu Sénégal bi Aliou Cissé nee na joueurs yi fi nekk dinañ taxawal bu baax Sénégal ci coupe du monde bi Sénégal nag daa mus di am ndam ci matcham bu njëkk ci coupe du monde moo xam 2002 la wala 2018 Aliou Cissé bëgg loolu wëy ci kanamu Pays-Bas mu di équipe bu mag am ay joueur ci club yi nekk ci championnat yi gën a am dayo wante wax na ni Sénégal du ragal kenn ndam liggéey ak gëm sa bopp ñoo koy joxe dëggal na tamit jafe-jafe yi am ci situation Ismail Jakobs ay këyitam mayaguñ ko mu football fi mu ne nii ci équipe bu Sénégal bi Aliou Cissé nee na am na yaakaar ne lépp dina saafarawu ci lu gaaw su ko defee Ismail Jakobs mën a jogante ci coupe du monde bi.